الله صاحب العز والجد خاتم لرسل الله محمد رسول الله jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf barakallah fiikum imam kon ñu ñëw ci waxtaan wi incha allah bismillah comme ni nu ko baaxoo defee jamono boo teewee nu indi ab tem nag jamoo ko incha allah tey dama xalaatoon ñu waxtaan ci wàllu islaax mooy yéwénoo ndax ginnaaw ay jàmm te xam nga li xewoon fan yi yëpp ci dëkk bi mooy ŋàngloo bu mettee metti ak béjoo boo xam ne ni ku yewoo ci réew mi rek ump la mu métti woon kilifa yu baree baree bare ndax pexe amu ci woon waaye yàlla mi dara tewul nga xam ni moom lu ko neex rek lay def faalu li yurit ah, ubbi na am na xel yu mu ubbi ak dënn yu mu ubbi ba ñuy jot cee dox wax ci te yàlla yàgg naa làqu ci lëf def dara euh, ca ginnaaw kàddu yooya ak ñaan ga ñu ñoon ñaan tax na tey ndox mu baree bare ñu wis ka ci ba daa mel ne mi ngi dal ginnaaw bu ma gërëmee daara ji nag nga xamante ne ñoom bu ma nee daara ji nag ñu ngi ko tàmbalee ca mag ña mag ñi fi sos daara di jàngale diine ñu xamee leen diine ak lu leen waaye mën a waxal ak lu leen waaye mën a gàkkal kooku yow la concerné waaye ñun gis nañu seen résultat ci ñun waaye gis nañu seen résultat ci pénc mi kon ñu sant leen bu baax gërëm leen fi ñu yàgg féete jamono bu Sénégal bëggee tàkk ñu wax jamono bu tàng tàngaay amee ba tegante dënn am ñu wax te bu ñu waxee yàlla def barke ci seeni wax loolu nag ndamal daara ji la ndamal képp kuy teg àlluwa ci sa lupp mbaa képp kuy bind nday joor ci ndam loolu nga bokk moo tax ma ni woon buñ boo ñëwee tey nu waxtaane islaax maanaam yéwénoo ginnaaw ay jàmm xool ba xam nag bu dee jubu na la tàmbali bu jubul ma seet beneen tem imaali luy gannaaw ay jàmm hmm. te jàmm jooju nag la yàlla teeroo prophète yépp hmm. salaamu ala ibrahim ala noohin ali yaasir da yëpp mat mu ne gees na assalaamu aleyka ayuha nabi kon boo tànnee boo nu war a waxtaane ci al islah tudd yéwénoo wala médiation tudd mag ñi nga xam ni wax nga ko nga ne yàlla dina laax ko ci mbir loola fajo yàlla teel na noo xamal lii sunu garab mooy ñaan addu'a u silahul mu'min waxul grenade silahul mu'min déedéet waxul char mu'min waxul fuul silahul mu'min dene addu'a u silahul mu'min mm-hmm. bu nu gëmee ñaan googu rek yaakaar ni imaam yi jàmm rek am mm-hmm. te ñaan dafa mel ni wal wal noonu nag mm-hmm. yàlla na yàgg wallu ñaan bu ànd force force bu normal bu ñaan ñëwee léppay yeppati kon nu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp yàlla nañu yàgg ñaan barakallah nga ne garanaat du jàmm déedéet lacrymogène du jàmm du jàmm feetal loo ca teg loo ca doon kon ah. yooyu yëpp du indi jàmm aywa léegi euh, kama qulta al islaahu mm-hmm. tuaamil binaa di binaa lil mujtama mm-hmm. Euh, kon yéwénoo mooy jur tabax société ndax bu yéwénoo amul kenn mënta dabax dara léegi sama question bu njëkk mooy léegi maa waqawul islaax fil mujtama ban impact la yéwénoo am ak rafetal ci société alhamdulillahi maali islaax boo si delloo ci alquran hmm. in urid ila ila al islah ila al islah ba ko yonent boobu di wax waxul ne maa ngi yëwénal ngir xaalis wala portefeuille walla leneen jàmm rek la tax ma may tax ma jóg di wax ngir borom bi mbokki mbokk kon impact bi mu am yàlla def ne subhanahu wa taala yëkki bi mu ne wallazi jaalakum xalaa'ifa al ard wa rafaa baadakum fawqa baadin xam nga lii épreuve la yàlla ne man ma ma leen def ay wuutu ay wuutunte ci kaw suuf jox ku nekk daraja di ko xool nag ba xam nan lay jëfante ak ñenn ñi ngir nag loolu suwe mu andi tegal lu si ne bu ngeen bëggee loolu sowee ba baax hmm. ba ko nekk xam dara ji ma ko jox hmm. mu ne innama al muminu ixwatun fa aslu bayna axwaykum moo hmm. tax ñi gëm yàlla ay mbokk lañ bi xasanti bi seraxole bi bi naar bi wolof bi ñépp te gëm ay mbokk lañ yàlla bon nag comme ko ragal yàlla lal jàmm rek baarakallah yal yàlla mottali yëpp yal na yàlla may xiir ñu ba ñu mën di yëwénal euh, kon léegi nag euh, ci wàllu euh, question bi société ban ban lan moo koy tabax société li koy tabax moo di fexe ba déggoo am déggoo am bu déggoo amee li fi amoon dootu am moo tax yàlla subhaanahu wa wax na gannaaw ay boobu mu ne wal tekkun minkum umma fa aaya bi jeex yàlla ne na ngeen créer groupe boo xam ni la ko tax a jóg mooy jàmm am hmm. ndeke consertation du lu bees ci ñun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla jëkk yenkewal wal tekkun que de vous un groupe qui appelle à la paix à l'obéissance hmm. interdit lu bon ak lu ñaaw hmm. na am si yéen loolu bu amoon bu am bu rek am imaal yi hmm. li fi jaar dootu fi jaar mukk loolu nag loolu la mel na mu dafa mel ni moom la sunu kilifa yi dina yi gis ñoom ñu conseil groupe dugg ci kurus yi dugg dama ci der yi dugg guddi gi ñaan borom bi subhanahu wa taala hmm. lu ñu ko doon ñaan jàpp hmm. lu ñu doon interdit safaan bi hmm. kon nag bon ndekkee fokk consertation am faaw woote jëmale ci lu baax am faaw ter lu bon am loolu mooy tax ab société mën a mën a solidaire léegi nag euh, li nga wax ni dëgg la ndax il faut que am group bu jóg il faut que groupe jóg di dox ci jàmm di yéwénoo naka jekk àdduna ba mu amee ba léegi euh, xuloo mos a jóg mos a xuloo mos a fay ñàkk réeroo mos a fay ñàkk ci njaboot gi waaye bu réeree mos a amit am na ay nit ñuy jóg di dox ak wax pour réeroo googu mën a deñ mm-hmm. loolu la yàlla dimbalee ñun ci sunu réew ma balaa ma lay laaj sama première deuxième question ma sarxal ci ni moo tax amul benn benn organisation bu ñu war a xeeb ci réew ñii bu ñu leen laaj wala ñii bu ñu leen ci boole réew mu bëgg a avancer mu nekk dana moytu loolu ñii ay ustaas lañu ñii ay sëriñ lañu ñii nit diine lañu ñii ay imaam lañu ber yooyu moom la tubaab yi doon def ci Afrique moo waral pàcc pàcc yii nu def xam nga ne gàmbi gi suñu biir la bokk. bi mhm. Bissau suñu biir la bokk. ñu nag Mali ñoo àndoon waaye mburu boo ko bëggee lekk da koy def ay morceaux yu ndaw ruq bu ne nga leen yéen moom yéen a yéen a moom seen bopp ruq bu ne nga leen yéen seen droit lii la ruq ba ngeen yéen seen lee laa ñii ay diine la yéen bu leen jàngale diine ndax njàngaleem diine la yàq suñu affaire. bu nu màggee ci lool rek ba gëm ni kon diine warul wax ci ñun wala alxuraan warul wax ci ñun walla nitu diine warul wax ci ñun ñu ngi commencé wàññiku te neen ñun dañu bëgg a mm-hmm. ku bëgg a développé wu nag même ñi nga xamante ne sax jànguñu alxuraan jànguñu benn njàng lu may njàngu mag ñi lañ fi yoroon muy aaday mag ñi war nañ leen boole ci réew mi. bu baax te di leen déglu ndax mag lu yàlla waaye yàgg na ak yàlla kon ku bëgg développement da ngay xool la nga am ak ña nga am ñëpp nga xool leen. seet nooy noo leen di intégrer fexe ba ku ci nekk gis sa bopp ci doxalinu réew ma ku ci nekk gis sa bopp ci alali réew ma waaye ku ci nekk gis sa bopp ci la nga gëm ñu sàmmale la ko aar la ko loolu mooy indi développement. Hmm. loolu itam dana tax euh, yéwénoo am dana tax itam juboo ak joxante kanam am. loolu boo tax muy muy nu delluwaat lu ñuy obli nu delluwaat si ay bu njëkk bi yàlla mi ne man maa leen bind. def leen ay courtois si kaw suuf ngeen di remplaçante ma yëkkati daraja yi ñu woroo jox ki jox kii jox ki ku nekk nag la nga am doole ja nga am mhm. xam-xam ba nga am mhm. nga tibb sa jox ko ka amul mu mhm. former un groupe soo demee ci terrain bi dafa am atta les attaquants les défenses les gardiens et l'arbitre ñoom ñoo construit le terrain mm-hmm. mais terrain bi sans ces jours mm-hmm. du neex ki mën a teet dugal bit kii dañ koy defar ba mu baax mu dugal bit moo tax yàlla dama leen def si kaw suuf ngeen woroo ngeen ay kuutante mba xool leen nag ku nekk la ma ko jox si ay ay ngëneel nan la si jëfandikoo ak ñenn yi mm-hmm. bon formé ay group li nga woo wax léegi woo ñii woo ñële bu kenn xeeb kenn. Hmm. dëgg bu kenn xeeb kenn lool c'est très important te xam nga ne Sénégal lu neex a neex a eh, dirige la imam hmm. ndax dañu am ngëm-ngëm Sénégalais boo séen muy dem am na lu mu gëm hmm. te boo ko wooyee ca la mu gëm rek jot xolom soo ko fonkalee la mu gëm jot xolom jot jàmm moo tax tariqa yi kenn waru jéem a def benn pexe bu leen di tàkkaleek seeni taalibe kenn waru def benn pexe buy wàññi seen maqaamba seen daraja ndax seen maqaamba seen daraja du lu leen nit jox yàllaa leen ko jox kon rafet na koo fekk mu ni ñum nga judd fekk mu ni ñum ak na mu mel ak teraanga ak turam mat taal bu yàlla taal sànni ci ak mat gën di ko jéem a fay te na nga meloon ba amagul sikkim nga mel noonu ba nga xëy am sikkim ba sa sikkim weex tàll boo ca jàppee doo torox kon il faut ñu xalaatat bu baax suñu kilifa yi seen rol ci pénc mi seen jàpp ci pénc mi seen rôle ci jàmmi askan wi waaye seen rôle ak seen place ñu gën ko xoolaat gën gën ci taxawaat ñoom ñoo nga ca la ñu nekk bu leen ca fekkee ñoo nga ca bu ñu leen ca fekkul ñoo nga ca waaye jaadoona ñu joxaat leen gëddate dëdd leen déglu waaye bu fekkente ni bu sa loxo gémee sa gémmiñ yuuxu nga ne na sëriñ si wax bu sa intérêt taxawee te bëggoo ko ko ku ca wax nga ne na sëriñ si noppi loolu xel nangu ko léeg-léeg réew mi am fu mu toll imaam bu wax ñu jaboliser ko yàq sa der ci réseaux sociaux yi ba dootoo jar dara sëriñ bu wax waxi noppi bu sëriñ benn sëriñ joxe ndigal ndigal xewi na ku fi ku fi joxe ndigalam kenn du la ci topp ndax nit ñi nangam ak nangam askan wi nangam ak waaw bu jamee ne tàngee ba tàng ñu na sëriñ si wax ndax noonu lañu ñu nekk sëriñ ndax di nga doore di télé guide sëriñ bi di ko xoolal li mu war a wax ak lu mu warta wax kilifa bu toogee la muy gis ba di ko tere moo ko xam waaye boo dee njaboot nag bu ñu la teree li gën a baax mooy nga bàyyi te ngeen leen di fekk fa ñu nekk te di leen laaj te di leen tàggu ndax tàggu ak yëgal du benn jël sa décision ba pare nag doo dem ci sëriñ bi ne lii laa bëgg a def du man lu may loolu la baax na bu la baax na nag leneen loo ca fekk nag nga bëgg ko la ca wallu musiba la am te gone bu dee yéeg fa mu yéeg du gis dara waaye mag fa mu suuna di xool ma ngay seen jëllub ndaw ndaw la ndaw la war a daanu ma ngay xool seb jël moo tax ñu ne xale yéeg na ba ca kaw séentu séentu séenul dara mag toog fa mu toog lépp kon mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla li ma ali euh, ma fay la foofu nga continuer antar ibnu shaddaad dafa wax li nga wax léegi ne bu tàngee ñu séentu borom ñaan yi bu neexee ñu fàtte leen entre ibnu shaddaad def ne ana ibnu zabiba fi silmi wa ibnu shaddaad fi lxar bi man dey maay doomu buur bi bu tàngee ba ñëpp ragal ba kenn du dem may dem ma maay doomu sabi ba waaye bu neexee ñu fàtt ma mm-hmm. bu neexee mm. ñu fàtte ma waaye bu neexee bu naqari ba naqari ñoo xam ne may may xeexal may xeexal waaw jàmbaar noonu lay mel effectivement nga jàmbaar jàmbaar noonu lay mel man ñi ba ci sunu mbokk yi joué théâtre sax am na ci ay acteurs yoo xamante nii dama leen di yërëm ndax acteur boo xamante ne lu nooy rek lay joué takki jabar oto bu rafet ligsu dem ci piscine yi sangu lëngoo ciikar ciikar loolu du rôle léeg-léeg nga léeg nga dund lu métti loolu nga dund lu métti waaye am na ci acteurs yoo xamante ne tey si ñoom lu nooy rek xam naa ne amuñu ci perte ma loolu jàmbaar dëgg mooy ni gay gaynde mel fàddi ba ñëw jox njaboot gi mu dem boofu toog na le lu ma bëgg a wax foofu muy njiitu réew ak kilifa gu mën a doon féetewal fu tàng fi féetewal fu metti fi lu ñuy joxeñ yow la ñuy joxeñ bu ñu dee sikk yow la sikk waaye jàmbaar yi xam te xàmmee xam nañ ni buru woon ak tubay julli ñaaw loolu mooy loolu rek am solo bu ko nit ñi xamee yàlla dina ko xam bu ko yàlla xamee dina ko xamal gaayam yu baax yi ne ci kaw suuf yi wéet di la ñaanal te loolu rek mooy li am solo maanaam mana maanaam ju nekk du moom c'est mois c'est moi c'est pas lui que nous cherchons bàyyi ba ñu yawa bu ñëpp ne yawa rek boo génnee di moom waaye boo bëggee di maanaam te kenn yàlla newagul yawa doona koo dara kon nanu déglu alxuraan muy yéwénal yéwénal yéwénal yéwénal kon bu baax bi nga xam ne mooy yéwénal lépp luy yéwén mooma buñ ca paree ñu ñu ñu déglu ña nga xam ne ñoo koy jàng te di ko jàngalu te di ko fréquenté nga xamante ni loo ca xamul ñu mën la kaa xamal loolu itam dana baax boo xoolee suñ cosaanu réew imaam ki ñu jëkk yilif yor suñ réew ba ñu amee suñu indépendance Senghor la doonu katolik gëmul sax lislaam du julli waaye amoon na maslaha ak consideration ci sëriñ si loo xamante ni am na ay jullit yu nu yilif tey te meluñu noonu ci ñoom ànd bu sincère ànd bu dëggu nga dem ci nitu yàlla dëkk sa loxo mu ñaanal la ñaan nga nangu nga delloo ko jukkal jafe na ci soodaan loolu jar naa bàyyi xel bu baax li ñu wax na xayrul quruni qarni siècle bu gën a jege rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy mooy siècle bi gën a baax te gën a wér siècle loo gën a dem na di gën a gis ay ay ay pëppi nit démb gën waaw démb gën gën tey kon ñi xam dañuy xam ne ne leen delluwaat suñuy valeur dégluwaat diine ji fii diine fi yor kàddu goo xamante ne nii kenn du ko jam diine fi yor décision boo xamante nii ñëpp a ciy gis seen bopp diine fi yor àtte boo xamante ni bu ñu ku ñu ko àtte ku ne su fekkee liimaan a ngi sa xol da nga naan ay la yowee niñu ma àttee dëgg la waaye atte beneen bu nu fi atte bu dul atte diine am na contestation mm-hmm. am na recours am na lii am na laa am na yéeg am na wàcc kon di kon nag nanu bàyyi xel bu baax nitu diine yi na leen leen joxaat seen cër jox leen cër seen cër du tey ñoom ñu am seen cër ñàkk leen jox seen cër du tey ñoom am ñu seen cër magi la dem lañu ku leen gis ñu gis seen bopp ku leen gis ñu gis seen bopp mook imaam yi ñoo yem nit diina yi ñoo yem am réew na bu ñu bëggee mu développé ñuy seet ña nga xamante ne ñoom jëmuñu fenn ay nit intérêt personnel lañu ku ànd ku xew ñu ànd ak yow ànduk taqandeer boo ne carfal nit ki song ko taqandeer mooy jiitu jiitu ca kaw booy dóor nit ki suuf taqandeer moo lay fa moo lay teeru ci suuf boobu ànd baaxul boobu ànd baaxul loolu moo tax nag ima ali noo am solo ànd bu mel noonu yéwénoo amul amu ca ànd bu mel noonu doo ci gis yéwénoo dañuy àndandoo yëkkandoo yëkkandoondoo bokki xelal te ko nekk nag nangu boo juumee ñu ne da nga da nga juum nga accepte sa njuumte loolu dana tax médiation am am solo ndax bu ne yéen ñëpp ay mbokk ngéen lii nu bokk muy réew mi muy kër yi muy région yi muy bureau yi muy marché yi muy géej gi muy fépp yàlla dafa jëf dafa jëfandikoo impératif fa aslihu bayna axwaykum li ngeen bokk lépp ba ñaaw ñaaw dootu am mbaa dana jafe su ngeen ko yëwénelee seen biir jàmm rek ngeen di am dem leen fépp nag man maa ko fa aslihu yàlla ngeen yëwénal bayna axwaykum li ngeen li ngeen séex na yëwén mhm. li ngeen séex na yëwén mhm. li ngeen séq na yéwén alal réew mi ñépp ci lañu bokk waaye am na ñu ko yàlla jox ñu dirige ko jiite ko ndax bu loolu anarchie day am bopp réew mi am na ñu yàlla teg ca kanam ñu sañ a def sañ dindi su loolu anarchie day am waaye yow mi nu jiital nag nga nekk ci alal réew mi jor ko del def transparence del woo ñi ci bokk del woo say nawle del waxtaan ak ñoom bokk na ci yéwénoo imaam hmm. njiitu réew mi war nañ ko mën a ñaan ci baatub lislaam muy recevoir adversaire politique am bu dara xewul sëriñ Cheikh Tidiane si dégg naa mu wax ci wenn waxtaan mu ni moo sengoor mosuñoo jubo waaye léeg-léeg am dossier bu lëj boo xamante ni du ko mën a lijjanti. Mhm. day woo Serigne Cheikh ne ko eh be Cheikh man dama bëgg nga doxal ma diggante diw ak diw ak diw bien vrai que maa yow jubawuñu mais nag intérêt réew mi dafa taxaw mhm. te ma yaakaar ni man nga ci dara Serigne Cheikh wuy ji ko dox loola ba mu sotti ni ko fu nu yewoon ci xuloo ba. mu ni ko fàtte naa ko mu ne ko nan kon jubóo <laughs> kon deel kon deel ma kon ne ku la jàpp sa mer loolu mooy vrai patriote waaye mosoo dégglu Serigne Cheikh def mbaalum wax mosoo dégglu Senghor def mbaalum wax ànd nañu rafetal ko ba ni ñu xëyee jeexal puisque dañu bokk loolu fa asiru bay na ak waykum li ngeen bokk mhm. ni yéen mhm. fexe ñaar ñu jubóo mhm. intérêt réew mi la fexe ñaar ñu jubóo dafa nekk intérêt réew kon nag nañ ko yéwénal ba ñoom ñaar ñu bokkat ànd nekk benn réew mi am jàmm hmm. moom wóolu hmm. xam na ni Cheikh Ahmed Tidiane hmm. yàlla may na ko bu jógee taxaw def yooyu mu antu mu nangoo reconnaître xam ne mu am na faiblesse am mu jóg wax loolu mu antu loolu fa aslu bayna axawaykum di ngeen séq maa dëgg la ci côté boobu rek ndax am na solo imam fekkente am na solo xam nga jàmm ji nga xamante ni moom la war a jox ba ñépp dellu ci jàmm moo tax ñu sañ dem juma ajjuma ji nu génn wala altine ji nu génn bitik ubbiwul ndakaaru oto dawul ñépp toog seeni kër lu ko waral ñàkk jàmm ndax bu la wóoree boo dawalee sa oto ñu toj ko di nga taal sa oto jëm Dakaaru bu la wóoree boo ubbee sa bitig ñu dal sa kaw toj bitig bi sàcc alal ji yóbbu ceeb ak diwlin gi di ko ubbi kon jàmm lu ko waay jënde jar na ko moo tax nag kon fa aslihu bayna awaykum na leen yéwénoo na leen joxante loxo ñu ñaanit président mu ubbi ay buntam na ubbi buntam te muñ te sant yàlla te li ko yàlla defal 16 millions sénégalais yépp topp ci sa ginnaaw koo dajal ku sa oto dajal mu wàcc mbooloo moo dem boo boo waxee ba pare keneen dootul wax tànk wax agoo mbooloo ma tasagul koo yónni mu dem koo woom wuy la koo soxla ak fu mën a nekk ñu jëli ko indil la ko te juróo nit ñi jëndoo leen moomoo leen ni nga juddoo rek la ñëpp juddoo nga jàng ci école yi ñu jàng ci école yi yàlla seppi ci biir nit def la ni mu la def la ngay sant yàlla mooy bañ a toppante bañ a toppante ak kenn te doyloo yàlla def yàlla muy sa kilifa def Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi sa muy sa nawle ca muñ ca yaatu ga ca yaatu dënn ga ca na mu daan defee ki saxaabaam ca na mu daan def ak ñi nga xamante ni ñoom la déggoolul woon di leen woo di jub ak ñoom di naxtaan ak ak ñoom moo tax au bout des vingt trois ans ci la l'islam wër adduna bi ndax avant ñu am na 40 ans te 63 la dund kon vingt trois ans ci la woote lu ko ko may mooy yaatu dënn fa bi ma rahmatin min allahi linta law walaw kunta fasdan xalisal qalbi lan faddu min xawlika kon waaf anhum wa saawirhum fi amr waaye fa iza azamta fa tawakkal ala allah kon président loolu moom moo ko moom na yaatal dënnam woo kujje gi woo société civile yi woo sëriñ si man bi muy woote ci pandémie woo ñëpp woowul ustaas woowulub imaam woowulub sëriñ ci laa commencé woon tiit ci moom ndax dafa am lu nu bokk mu dib jullit na ñun yaakaar xibla gi jàng alquran di doomi jullit tey jullit tey woor kon lépp lu muy laax lu nekk na ca lislaam bokk nañu woo laaj ñu boo woon kenn rek doyloo nañ ñëpp doyloo na ko waaye boo wooyee bëgguma sax di personnalité rapport yi wala nangam ak nangam ndax ñoom tam ci seen liggéey la ñu nekk waaye ñooñu la ñu xam ci wàllu doxalinu àdduna waaye waaye alxuraan xam na lu ko ñoom dañu wax te euh, euh, li ñu wax ni kajoor kajoor nangu na nga lekk bàyyi ko waaye nangul nga wax bàyyi ko boo waxee bàyyi ko mu génn ci yow ñaan itam imaam ci wàllu islaax bi nga wax xale yi nga xamante ne ñooy activiste yi ak ñi nga xamante ni ñoo am lu leen naqadi di ko jubbanti muy démocratie muy ressources naturelles yi muy nangam nangam yooyu ñoom dañu jàpp ne itam ñoom it ñun la defaral ñun askan wi la ñuy defaral ñu ñaan leen ñoom itam ñu favoriser dialogue favoriser waxtaan nangu ubbi seen dënn waaye rien au tout tam baaxul gësam ngeen ba xam nañu nu ngeen toll xam nañu seen pois teg leen arme yi ci suuf teg leen ngànnaay yi ci suuf commencé doxal commencé wax kii fi nekk moomu ko daf ñoo téyal bu matalee day dem ndax maître Abdoulaye Wade bu matalee dafa dem kon moom itam bu matalee day dem ci li ma yaakaar kon yéen ñi fii yéen ñi nga xamante ni moom bu demee du ñu jëli beneen malien du ñu jël beneen gambien Sénégal la ñuy jël te ci yéen ñoonu la jël kon li fi nekk sàmm leen ko sàmm leen personnalité bi ak dayo ji sàmm leen démocratie bi ak dignité bi favoriser leen waxtaan bu ñu leen wooy waxtaan dem leen ngeen wuy ji bu leen yóbbu xeer bu leen yóbbu yet ndax kaa yi ñu waxtaan nga ŋàbbu aw yet làq sa ginnaaw ma ŋàbbu xeer nga sa ginnaaw lu neexalu waxtaan kon yow mi woote tam wax waxtaan tam tàllal say loxo mais lii bu ñu xam ne yoro paaka yoro jaasi kaay leen waxtaan rek lii daal nu ngeen ko gisee waxtaan ci bu ñu paree am consensus jàkk jàmm na ñooy am déet imaam ah, loolu moo tax loo islaax am nag ay éléments yoo xam ni mooy tax nga ma ko taxawal islaax hmm, waaw kañ léegi nag éléments yooyu laa la bëgg a laaj léegi nag mahiya mahiya euh, awamilul euh, nu mu tudd waaw waaw noonu la mu addi ila islaax yan facteur mooy yi indi euh, islaax benn baat bi man nekk juróom ci bu ko taal permettre waaye na njëkki rek bi nga xam ni mun loo fexe fexe ba doo ko nekk boo ko bëggee lu bukki wir wir jaari ndaar mhm. mooy al iman billah ah. ku bëgg a yéwénoo di nga gëm yàlla al iman billah li ilaay kalimatil xaq foog base fondamentale ci ci médiation ci ki gëm mooy mu gëm yàlla ngir yëkkati kàddu yàlla si kaw suuf kàddu yàlla bu jëwee kaw comme clairon ni nga xam ne bu bépp soldat bu ko dégg rek xam ne muy firi dem tëddi ba mu rassemblement leneen ñu xàmmee lu ëpp loolu kàddu yàlla ci kaw foofu bi ko ràññee rek tëkkoo bi ŋayoo bi xebante bi dàqu ngir lan dañuy tëral xaq danañ dañuy tëral dëgg dañuy tëral booloo dañuy tëral yiw hmm. kon iman mooy facteur numéro un hmm. Hmm. imaan ci wàllu islaax boo ko jiitalee rek sax sa yow sa yoon day nooy gëmal yàlla ni lu am mooma gëmal yàlla ni lu amul moom moo ko def noona fi mu loo fi seen diggante asamaan ak suuf yàllaa ko bàyyi noona bu ko neexoon du fa ne ñun ñi taxaw ci kaw suuf dem ak dellu si yépp yàlla la neex bu ko naqari woon ba léegi kenn dootu fi nekk nga gëm ni tamit lépp loo seen nit am ko lu yàlla dogaloon ca azal la kenn judduwul doon baadoo la kenn judduwul doon buur yàlla tànn ci nu ko neexe tey Pape Lay ji mii mën na jàpp ne moom moo ma ëpp xam-xam ci lii muy def loolu sax yàllaa ko dogal mhm. ma nangul ko ko nag tey ñaaral ko ko bu ma dégg ni Pape Lay am na promotion ma téléphoné ko mbaam ma sol sama daal dem ci ma ne ko jërëjëf félicitation liimaan dafa am solo imaam gis nga keroog bi nga xamante nii sëriñ euh, Sidi Mokhtar Mbacke wut na sëriñ Baara ibnu sëñ Faadal sëñ Muntaxa mii boobu moo doon jëwrin ji dafa yegg ni ko sa waajur bu baax wi de sëñ Saaliw ñun ñëpp a ngi toog bi mu wóotoo sëñ Abdou Lahad lii la yokk ci jumaa ji lii la naal lii la def ci dëkk bi lii la fi dese sëriñ Baara yor liggéey bi bi mu ñëwee moom tam lii la yokk ci jumaa ji lii la yokk ci daara yi lii la yokk ci liggéey bi tey nag Mbàkke sëñ mu Sidi Moxtaar ni ko ñoo ngi nii ci sa ginnaaw yow rek lañuy ñuy déglu loonu sant nu def loonu loonu teru nu bàyyi ñoo ngi lay déglu honnêteté boobu nga xamante ni képp kuy remplace nit ci xilaafa nañu lay sampe loolu liimaan ga koy lal mooy tax nga toog ak jàmm kenn du la fakkatal kero bi bi Macky Sall mii di remplace maître Abdoulaye Wade ca discours bu fekkonte ne nit yi diine ya fa nekk joxoon nañu leen te bañ a topp protocole ak mm. yoo xam kenn du xam kan la kenn yëkkati kàddu goo xamante ni dana tax ñu xam ne ñun suñu institution yi dafa xeeñ lislaam nu copier ca loola dana tax toogin wi neex sëñ Muntaxa ngi ni kenn neewu ko defal ñu bilan kenn neewu ko li ñu lay jox fu mu toll loo liggéey loogum def gum nangam nangam kenn neewagul sa toogaay bi yàgg na da nga foor a jóge ñëpp a nga toog di ko déglu te ko ñaan ku wax ku nekk ñaan yàlla na fa yàgg te wér amiin léegi lan moo tax ñun ci wàllu àdduna nangoogu ñu tirise ci lislaam te am liimaan bu toll ni xam ne lu fi sot yàlla la man Imaam Ali doomu aadama buy dox si ko suuf xam na ni yàlla am na soo të të të si néeg war a nelaw di la wó dina la wóor na yàlla am na dugg sab néeg guddi jot nga fay sa làmp tëdd dana lay wóor na yàlla am na mën nga ñàkk feeñal nag ci ci ci biti mhm. waaye ku tudd sam néeg xam ne yàlla am na kon nag yàlla am na jooju war na feeñ nag ci biti nga yëkkati kàddu yàlla ci toutes les actions des activités ci yar bi ci xam-xam bi ci déggoo bi ci liggéey bi ci pouvoir bi ci sañ-sañ yi ci doole yi yooyu yëpp yàlla ne maa ko def ngir seet leen pour vous éprouver ku nekk la nga am noo koy taxawoo noo koy taxawee yow sa sa rôle mooy nga nekk planton kii rôle mooy mu nekk ministre kii rôle mooy mu nekk secrétaire kii rôle mu nekk technicien kii rôle mooy mu nekk marabu kii rôle mu nekk président yàlla ku nekk am naa fu ma la teg teg la nag bët ba xam nooy jëf nooy jëfandikoo ak li ma la jox waaye soo ko yëwee si yëwee si yëwee nu amee mu nekk lu lu lu am solo kon nag imaan mooy bâche numéro un numéro deux moo di lu ñu hmm. tuddee maayatullah ima lii lu am solo ngi ima hmm. su amee su lii liy defar liy defar euh, médiation mooy nga yëg ne yaa ngi ànd ak yàlla doo ragal ku la jànni doo ragal ku la ku la ku la buddee puisque xam nga ne ki nga àndal mat na àndal moo tax yàlla ne allahu wali saalihin hmm. yàlla ne man may compagnon bi nga xam ni ñiy yéwénal ñiy dox pour yéwén am te yiw ñoom ñooy samay gars kon kuy dox pour pour pour médiation entre pays ak pays quartier ak quartier dëkk ak dëkk néeg ak néeg nit ak nit kilifa ak lu kilifa kay dox médiation boobu yàlla ne man mooy sama àndandoo. loolu loolu imaam macha allah loolu doy na sëkk rek même ma yetu yàlla sax loolu rek doy na sëkk ab tem. allahu akbar ndax foo toll nga xam ne yàlla nga ànd ak yow. alam yaalam bi anna allaha yara allahu akbar xanaa xamu na ne ngi lay gis foo mën a toll. te yàlla ku ko yónni ci sab noonu di nga ko yàkkamti. yàlla du reyal kenn ab noonam. ñi koy yéene woon ñépp tey seen baqataa ngi seen gémmiñ ku bëgg foo joxañ jant ba génn nag del joxañ penku ak feneen foo mën a joxañ mën nga am gàcc ndax yàlla du topp kenn ci ci sa ci sa programme jant bi fi mu baaxoo génne mooy penku bi fi muy duggee mooy sow kon ku bëgg lo foo joxañ jant ba génn fa bul bul bul mooy xibla bi allahu akbar nguur yàllaa koy joxe cër yàllaa koy joxe xët-xët taxul falu ne tekk déglu yàlla itam teewul falu kon nanu ànd nañu ànd ak maayatullah xam ni yàlla wa huwa maakum ayna ma kuntum fu ngeen mën a nekk rek mi nga ànd ak yéen te kenn mënul fexe ba bab lay jéy mii wërsëgam wi des suba ci samedi ji mu war a añe Amérique te du fa añe ji fa mooy jaar nag ba dem yoonu kenn nekku ca ndax yàllaay yàllaay wëlbati mbir yi waaye bu yàlla dogaloon tuba tey fépp ceeb bu mu war a lekk ci Amérique heure ba waxtu wa du manqué zéro mètre cinquante. waaw yal na yal na yal na Amérique. amiin kon bokk na ci xam ni maayatullah mbir yi nu mu toll mu nekk nañ ci ànd ak yàlla. su situation présenté tooy te nga bëgg am ndam del déglu yàlla. yonent yàlla Moussa ba mu fa tolloo. Mm-hmm. dafa doon déglu yàlla. waaw sax Ibrahima ba mu ca tolloo ñu takk ko bëgg ko sànn ci safara yàlla la doon déglu. allahu akbar kon lu mu métti métti métti nanu déglu yàlla say noon bu nu àndoon ñoom ñëpp groupe fas yéene laa gàccal te yàlla àndu ci doo musam gàcc. mukk mukk bu ñëpp àndandoo yonent yàlla Muhammad bi sallallahu alayhi wa nu bokk gëm nan la noon yi def. dajaloo ñoom ñépp ca daaru alxam nii lañu koy préparer moom pour xëy rey ko lu sama am wax yaasina yaqra'u yaasinan fa ja'alu wiqayat lam man kaana fi mujj bi ñaan dugg encore kere ba ñu àndoon ñu ñëpp ni lañ koy rey bu fekkoonte ne yàlla nelaw na wala yàlla nekk ko fi kon kere lañ koy jekku allahu akbar kon man ku la tëkku nga tiit yow war ngaa xoolal sa bopp jamono boo may dinaa la rey naa la dama lay reetaan ni jënd la tàng ne la ma cal bu ci yàlla àndul mënooloo ma tus ñun yàllaa fi ne maayatullah kon nan ah, temps bi jeex na nanu nanu nanu teg foofu suñu baaram incha allah te bëpp xol yi wàcce dënn jee xët xët yi réew mi sunum réew la bu nu ko taal bu nu ko lakk ginnaaw ay jàmm kilifa yaa ngi dox ci jàmm nanu leen wuy ci jàmm ji te rus kilifa yu baax yii te déglu leen ak jàmm loolu daal laa doon tënkee imaam alhamdulilah jàmm mooy lépp baarakallah jàmm mooy lépp kon nag ba tuuti incha allah bu kenn toxasee déglu ñu ànd ak